Sané maa ngi sama suma xarit sama xaritu mbër man mbër laa comme ñoom Agogo sàkku xam-xam moo nekk sama consultant Agogo loo wax si Jokal ak Ada Fass arbitre siw la na man kay li may njëkk wax rek mooy arbitre yi bu ñu njëkk sonn mbër yi wala ñuy ñuy ñuy ñuy njëkk yàkkamte ñibbi amateur yi. ndax léeg dafay waral sax nga gis combat boo xamante ne nii bu amee rëpp rek ñu joxe victoire fekk jeexut. mais lamb la combat bu garaaw la. waaw combat bu garaaw la du du nuruwul sax combat bu yàgg wax dëgg yàlla. ak koo xamante ni moo ko jiitu ci lamb di Jokkel mais gis naa Jokkel tamit tey dafa indi mystique bu bees tax waaye Ada Fass la boo xam ni kafur réewul. man moo xam naa ne Ada xeexul lay bëri. Jokkel waaw day bëri Jokkel moom lu mu war a def mooy siggi bi muy siggi sax dafa war a gën a bàyyi xel ci tànk mi Ada Fass xeexul day bëri ndax mënul xeexu léwatoo waaw korante lay gën a def ma defe ne avantage bi si moom la nekk Ada Fass waaw bu jàppante si jàppante bi e eh, waaye moom day saxal xeex bi rek bu bu jugee génn Jokkel na saxal xeex waaw na saxal xeex bi kay ba waa ji jël ay coup mu leer ba ne jël na ay coup loolu mun naa wàññi dara lu bari si moom kay sama consultant ñu ngi leewtoo ñoom ñaar le combat spécial Fallou Ndiaye production Jokkel jóge ci ay défaite Ada Fass ci victoire attention ta yara ñoom ñaar jàpp ko daana na ko. jeex na ko way bettuma bettuma na ko. laa ilaaha illallah gaa yi màmm nañu gaa yi màmm nañu bettuma ndeysaan la jeunesse la jeunesse weex gi mu weex. Ada Fass mi ngi ci digg géew bi ak ay nitam ndeysaan dafa mel ni ki dafay jooy émotion bee ko jàpp xam na lu ko dugal ci combat bi ah ay mbir la nag ay mbir la lu kenn dul wax ci kaw ndeysaan Jokal daanu na oh Baru Keba Kanté daanu na mais xale loo dafa nekk si yoon nag dañ ko dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ndeysaan mi ngi ci digg géew bi ba tey génnagul